asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ah, mbokki Urasul Irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu tey de moom àjjuma jéenu xaw a galfan loo ah, bi ñu xëyee si ba def suñu tan bi ak irshad boobu léegi dellu siwaat sax xawta yomb ngir programme yi ji waaye li sotti na yal na yàlla jàppale ñu nangul ñu jaamu yàlla yi yaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaw mbokk mi day dëgg gi mu moom genn rekk la dëgg gii daal genn dëgg dong la te lii it yoonu murit dong lañ koy gis gis leen ko ci weneen yoon ndof gi may wax ci nun daal ne murit yi daal ñooy tabaski lool di daal mooy li am moo ne ñun rekk de nekkuñu fi ñun rekk lu ñu tarixa de waaye bis bu nekk nga gis ñuy def ci yoon wi loo xam ne bu doon ba fi Sëñ Tuubaa di nekk loola du am daanaka dañoo jàpp ne woote Sëñ Tuubaa bii moom profito la ndëtëm la mëq la nu waaye mën a def rek ba mëq ba feesal rek yaa nga ca surtout la côté nag la ah waaw boor bu nekk la de daa am yuñ ci mën a wax rek ak yoo xam ne mënu si ko wax waaye aka bari ndegam mag ñi ñooy tërali projet ngir diil ba jekkee ci suñ tubaa ji sàkkantuma gone yi waaye ñun de ba nuy toll ni yenn aas yi ah, nañ daan lijjanti nañ def ba jeexaat indi ko suñ sëriñ taxani mat taal jàng toog jàng ca daara ja waaye nga dem ba jamono egg foo xam ne yaa ngi yor daara juñ tabax ngay taal courant ne gone gu tuuti laa danga toll ci jàng ngay wax naan maa ngi xëyee dëkk sàngam Tuubaa lañ ma woowoon démb guddi gi faraa ko def ànd ak sa gàngoor ak gone yi neen jéggi fa wëlbatikoo foofa daal di jaay janjaaf yoonu Ndakaaru ne damay dem ca télévision ya ca Ndakaaru ah, waaye nag sonn naa lool wax dëgg yàlla de démb laa xëyewoon kër dem Tuuba ñu woo ma fa falaa fanaan xëye fa ànd ak sama moroomi dongoy daara yi ñëw ndakaaru dikk ci télévision bi te su ma fii am na ak am ndajem gone mu ñuy def géejaway di ko def ab tuur ca laay dem waawaaw man koy wax dëgg yàlla sonn naa coono boo xam ne wata daal su ma ko amoon waaw kuy jàng alxuraan bëgg a mokkal war a jàng xam-xam ëllëg nga tekki ci diine judoogoo nee nga di wërëm réew ba dox bi sonal la ba nga bëgg ko la jëndal oto ngay tambaambaalu ndax kooku yaa ngi ci njàng loolu di wax dëgg yàlla doy na waar moo tax man defoon naa ci sama leeral bu yàgg waaye mbokk mi sax wax dëgg yàlla moo ma gën a leeral ci ni mu leeralee waaye Sëriñ Tuubaa de ba gone yi toll ci toll ci gone yi nu gis te mu ne ci jamono taloon nañ leneen lu dul naan ko dañ lay tabaxal kër waaw dañ lay tabaxal kër Ah, bëgg na ñu jàppale ma ma tabaxal Sëñ Tuubaa kër ah, war nañ maa jëndal oto jëndal ma téléphone mel ni nit ñi duñ xalaat te li gën a yéeme mooy kay jënd oto jox ko gone gu tuuti gu toll ci jàng ñaata doom la am te jëndalul ku nekk oto ndax yàllaa ko tax di def maa Sëñ Tuubaa ko tax di def boo bëggee defal Sëñ Tuubaa doo ko def ci lu mu santaane gone yi Sëñ Tuubaa nañ dem ca daara ya jàngi alxuraan mokkal ko jàngi xam-xam defatuñ ko ñuy wërëm yow di tàmbaa mbaal yi wutub dërëm di seen bàyyi te di leen ko defloo yow nga mën nu yet jóge càll bo ay jëndi si oto cinquante millions ci oto yi eh, vingt millions di ko jox di ko jox ay gone di yàq doomi jàmbur yi yar sa doom tardel doomi jàmbur eh, avancé sa doom bari waa ne koo xam ne yaa ngi jënd oto di ko jox parental te doo ko jox sa doom ndax boo bëggoon a jëndal sa doom muy parental oto ba ndeyam danaan la déedéet du ci dal nde man kenn du ma reyal sama doom ne kii na jàngi te bu soppee wuti métier te waaye nag ah waaw yow loo dul defal say doom nan koy defare doomi jàmbur léeg-léeg nga gis nit jënd oto jox ko nit te wata booba romb na ay këri këri këri yu xëy dañuy fande te jegeñ borom oto ba ko jënd lool te joxu leen ko lii ma leen wax mooy li am léeg-léeg nga gis ku bëgg àddina bëgg siiw bëgg nii laa tollu eh, bëgg lu rëy ni taxaw man kay su ma amoon nangam ak nangam doon ko siiwa siiwa siiw ku ñëpp di tudd euh, euh, nga daal di ci profité ne naa ko ko defal ndax su ko defee mu taxaw wax ne maa ko defal nangam ak nangam ak nangam ak ko defee nag man ma siiw am na ñoo xam ne siiw jaral na leen lu nekk ci àddina ñii dañuy topp musiciens yi ak seen oto yi tararar yi fu ñuy tëgg ñu fekk leen fa di baatare ab xaalis pour bëgg a feeñ télévision bi di wane ne am naa alal ak a wane eh, lu kenn xamut ñii dañuy topp jàngkat yi ñii dañuy topp théâtre kat yi ñii dañuy topp mbëri làmb yi moom daal doomi aadama yi daal dama yaakaar ne nag seen alal yi daa jéggiwul fulew ndax bu jéggiwul fulew danañ am xam-xam fuñ ko war a def waaye siiw rek bëgg gis leen ma bëgg na yaa yaa def nangam ak nangam rek jëf joo xam ne da koy wane ci télévision di ko publicité di ko wërim riiw ah te yow yaa ngi romb ay nit yoo xam ne mënoon nga ko def ci ñoom te boo ko defoon ci ñoom kenn du ko xam ah defoo ko ña ngi koy def ci ñoom soxlawuñ ko gone gu ndaw goo xam ne nee nga da ngay door a juddu toll ci njàng yow jàngatuwoo ña nga bokkaloon daara jàngatuñu boo xëyee jiital leen di wërëm réew fu nekk nga ne fa naam daraame sa baay toog di xaar loo fa jële ba indil ko ko yàq sa avenir yàq sa njàng yàq njàngam ñeneen ana gone gu ndaw nu muy wërëm réew bay sonn naa nañ ma jëndal wata buñ ko kay mooy daara ci tas na daara ji moom tas jooju daara moom xëtiñ ko moom te jooju daara ko fa yóbbu sa doom booy boo nga jëlee ko fa te yóbbu ko feneen ah bu dee ni yàlla ak yeneen bi suñ bàmbaa taxoon ngay jar say doom bu dee nag tappaleeg ak ak bii ci gaa jàll njoolu suñ bàmba nag mën nga leen faa waaye daal am na ci daara yoo xam ne yii ku fa sa doom nekk sax yoo xamoo ci nga ne ba ñuy door rasul iraada damaa waxoon fii ne leen suñ tubaa dafa xaaj dund gone ñaar fukki at ak juróom-ñett muy yenti juróom-yaar waxoon naa leen ko fi ne leen yenti juróom-yaar mi ngi tolloo ak ñaar fukk ak juróom-ñett tolloog baati faatiye yi bu fekkee ne bismillah i da bokk te amin bokku ci nga wàññi ko baat par baat ñaar fukki baat ak juróom-ñett la lay jox tolloog xuruful hijaiya tolloog tuuba waxoon naa leen ko fi ca ba may doon a tàmbalee waxtaan ak yiin ne leen sëriñ bi daa wax na xelet bi bu juddoo ba muy am juróom-ñaari at bul ko xas bul ko dóor bul ko saaga ngay bañ muy wax ko boo ko dee wax bu mu ko dégg loo bañ mu def ko boo ko dee def bu mu ko gis xëy na am na ñoo xam ne buñ ko déggee dañuy wax ne loolu lu bees la dañ koo fent waaye man day mag mi ma ko wax ci Cheikh Moussa Mbacke la ko la ko jëlee la topp mu ne nag taalibi takkoo la ak laxasaay ak darmankoo bu gone gi amee juróom ñaari at nga xam ne mosu ko fee dóor mosu koo xas mosu ko saaga looy wax mu wax ko soo ko dee wax bu ko digg looy bañ mu def ko boo ko dee def bu ko gis ba muy juróom-ñaari at nga dugal ko daara mu jàngi alquran te bu mu ca boole leneen bu jàngee juróom-ñaari at dina mokkal bexti bind kaamil muy fukki at ñeent su boobaa boo ca jógee nga yóbbu ko ca daara laxasaay ja mu boole njàng métier mu tax lëg mu mën a tekki dara mën a yor boppam te ca jamono yi Sëriñ Tuubaa bay xewoon moom lañ doon def boole koog nag dugg ci njàngam xam-xam booba ab laxasaay la tudd waaye ba mu nekkee ci kër ndeyam tuut tànk lañ koy wax ba mu demee ca daara jey jàngi ab takkoo la tudd ba mu demee nag di jàngi xam-xam boole ko defu laxasaay yu mel ni waa koom Euh, la xasaay la tudd ba mu fa jógee wàcc dellu si nag ci kër sëriñ bi war a pratiquer li mu jàngoon ba mokkal ko ba xam ko ba ràññee ko door a mën a dem ab darmanko li tudd bu ci nekk juróom-ñaari at la muy ñaar fukki at ak juróom-ñett programme boobu li la Sëriñ Tuubaa tëralal bépp dongo yow sa doom tolloo gut lu dul ci ab takkoo nga xam ne léegi mi ngi door a toll ci jàng xam-xam nga formé ko ba mu ne weewu di laaj oto ne day tabaxi kër sëñ te man gone ko tuuti laa bëgg jëmb laa juddu waaw euh, nañ bàyyi caaxaan yi caaxaan amul njëriñ de amul benn njëriñ boo jàngee ba noppi ba tollu ca loo war a am dinga ko am su fekkente ni sellal nga luy tara ngay àddina di nga tegi sa loxo waaye koo xam ne xamagulu alal di jëriñ nuñ la koy joxe koo xam ne ak xamaguloolu oté di jëriñ nuñ la koy joxe koo xam ne kii boo tëddee samalaan bu muri ko dañ la koy muural sa xottu ne rëtagul nuñ lay tabaxale kër joxale caabi ba lépp nga nekk ci ngi lépp nga ci bàmba ji ah day dafa jël gan xamu nuñ koy waxee waaw yàq bu jël gan moom la de ndax boo demee ci biir kër Sëriñ am na ci njabootam ñoo xam ne jóge nañu fii jàng nañ fii ba matal jóge fii génn bitim réew ñi dem Maroc ñi dem Algérie ñi dem Tunisie ñi dem Libye ñi dem feneen fu nañu dugg fa ci àddina bi dañ dañuy jàngi ba ñibbisi indiwaale seen ab xam-xam ku ci mel ni Sëñ Abdou Latif Mbàkke jàng na ba Maroc ba ñibbisi jàng na ba am xam-xam war a a jiite diine war a war a womati jaam jëmale ci seen boroom waaye moom de kenn jëndale ko kaat kaatam juróom fukki million kenn joxu ko it kër gu tabax eh, ci turu Sëñ Tuubaa kenn jëndale ay téléphone waaye gis nga gone yi siiw yooyu nga xam ne seen xotti leen yu nga xam ne ay comédien la ñuy doon yoo xam ne nit ñi dañ leen di yéem fi lay gaa yi def seen alal pour bëgg a siiw waaye nag da ngeen ko ci def ba noppi mu doon ngalaw doon maali foro te du ngeen fay ko dara am na ci bëri yoo xam ne ay caaxaan kese kese kese kese la ak addinay kese kese kese ak puukar bëgg ne nii laa te ku ko wax ñu ne soxor déedéet soxoroo da ngaa wax dëgg te dëgg neexut a dégg waa ji wax ci biir taalifam bii waxtaanam bii lu am solo ngi noonu de ku ci jur doom ji yeewu rek baat ba neex mu war a jàngi alxuraan jàngi lewu ko alxuraan jàngalewu ko xam-xam profité woo ci xelam mu neex moomu bala laa nga def ci moom xam-xam lu may def ci moom ay di rek tappale ak di tafu sëñ Tuubaa ka di ko ralu baa nga ko rogo jeeru di ko jëme ci boppam nga defe ne yaa ci dara nekkoo ci dara te sa doom jooju de boo ci taxawul jàngal ko bam am xam-xam dana masa toog ba doon magam jëm récc lam doon juddoo xam ne baayam ci boppam njëfandiku kaayu ut alal ak nax nit ñi la ko defe woon waaye xam na ne baayam tegut ko ci yoon ku toll ci xoos daa yalwaani lekk ñëw jàng ngay wërëm réew di tambaambaalu dëkk boo yendu fanaan ba ca des te li ma gën a yéem waaw xam nga dañ ma bëgg waaw fu ma dem rek xale yi dañ ma bëgg waaw eh, gone ndaw waroon na jàngi guddi taal jàng defatu ko jàngiwul guddi xam-xam ba noppi empêché gone yam tollol jamono yépp réew mi mu ne ci diriñ ñu fa ñu fa ànd ak moom di xoolee ba bët set dañu nelew yi xëy jàngee lu may nekk foofu di di def ay tàngalangaay xam nga tàngalangaay munte weesu yow masoor a gu kenn togg gula jëf jaamu yàlla war a gula jàng yàllaa la war jàngaluñ la yàlla jàngaluñ la sax ak jaamu yàlla waaye ñu di diil ak tappale xasida yi nga xam ne mool la fi Sëriñ Tuubaa mag ñee ko daan jàng waaye gone yi ñoom alxuraan la leen daan jàngal ay daara la Sëriñ Tuubaa yore woon yoo xam ne boroomi xam-xam a ca nekk muy jënd ay kayit di bindilu ay kaamil di ko séddale ci daara yi di jàngaloo gone yi waaye gone Sëriñ Tuubaa demoon tey Ndar suba foo jëm Louga ginnaaw suba Dakar laay dem ginnaaw suba Kaolack laay dem looy def damay liggéey Sëriñ Tuubaa am nga fukki at amaguma juróom ñaari at loolu xam nga ne ay tappale mënut koo wees ay tappale mënut koo wees de nañ leen jàngali gone yi xasida day du sunna waxuma farata de du sunna laa wax waaye nag àddina egg na foo xam ne nit ñi egg nañ ci ndof ak riir ñi egg ci bëgg seen intérêt ñi egg ci bëgg seen bopp bëgg nii laa toll bëgg rëy ba am na dëgg yoo xam ne boo ko waxee sëriñ si mere la client yi nga xam ne ay dañuy exploité yoonu si tubaa ngir seen njëriñ itamit mere la jaahil yi xamut it mere la waaye xasida di bu la teree jàng alxuraan jàng ko araam na dañuy wax ne li sax gi ganti gaal waxati ne tëj pénc waaye bu la teree jàng alxuraan jàng ko araam na de wa man lam yakun daaran bi isa tamasukin dey xat xaada o iblisu de man lam yasal xibba Sëñ Tuubaa moo ko wax waxe Sëñ Tuubaa mi bari bari yàlla la jàngale ko yeneen taam ak alxuraan jàngale wut leneen am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci ji jamono di ko ko tudde bu fi nekkoon ay yet lay dagg waaye du ci ànd sidna ali ibn abi talib nee na isa adarrat nawafilu bilfaraidi farfuduha naafila bu bëggee yàq farata lànk leen naafila ji bu leen ko def njàngum xasida naafila la jàng diine farata la kon nag bu farata bëggee yàq naafila nañ bàyyi naafila te def ku ci am sa doom mu toll ci jàng jàngali ko alxuraan jàngale ko alxuraan jàngali ko diine jàngali ko aqida muy tawhid te bu ko jàngal tappale ak ak ak ak ak ak jël suñ bamba def ko mbubb sol ko di ci exploité ay doomi aadama ku ci fexe ba sa doom siiw it fi bëgg a siiw siiwee ko rek ku ci bëgg sa doom siiw ngay fexe ba siiwal ko ba ñëpp di ko dégg ñeneen siiwa siiw te siiwu ñu siiwal ko siiwee ko rek ndax am na ci yoo xam ne ku koy def ñi ne yàlla ak suñ tubaa tax nga di ko def ñaxam yàlla xam yonent bi xam suñ tubaa xam nañ ne la nga wax du dëgg bëgg siiwa tax nga di ko def suñ bamba dafa wax ne alquran day ma saddani anhu ashyaun tuaddu ila sab'i rasaili saddat kulla man xurima zanbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunya itimaadun lil wara naama doful yaqin alladi saddal bariyati an tawakkulin wabtidaa wabtidaa wabtidaa un tarkusi utima Sëñ Tuubaa na alxuraan li dox sa diggante ak moom juróom ñaari sikk la te képp ku ñàkk xam-xam loolu moo dox sa digg moom bari bàkkaar akug rëy sax ci po bëgg àddina bëgg wékk sa bopp ci jaam yi lompoñ yaqiin ak topp li ñuy wax bidaa ak ñàkk wàkkilu ci sunu borom subhanahu wa taala yooyu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa wax ne mooy dox diggante nit ki ak alxuraan ba du ko xam waaye nun liñ ci gën rek mooy zab zanbun wa kibrun wa israarun ala laibin maanaam zanbun wa kibrun moom mag lañ koy laaj waaye israarun ala laibin ak ubun li dunya atimadun lil wara naxama moom loolu gone mën na koo def saxoo po bëgg àddina yëkk sa nit ñi fuqule loo ñàkk ne war naa koo am loolu moom képp ku nekk ci yow ngay gone na la ni sa xam-xam moom tas na te nag ku bëgg tànt bu nu tànt mu tiim la ni ko suñ aadi ñang si ñett te xamagoo dara na wur wóor ni kenn du la tàntal te nit ñi dañoo yaakaar ne mokkal ak neex baat ak mën a way mooy di diine yonent yàlla yi biñ fi ñëw way taxul woon gaañ taas taal nañu takk nañu baas bi ah, ko koy jàng tey sëñ Muudu Mbàkke da ngeen ko mës a dégg fenn gaa yi takk nañu baas bi tey ku koy jàng sëñ Ibrahima Mbàkke ko mës a dégg gaa yi takk nañu baas bi de te jàng mi ma nga koy defa Kawlax ko koy jàng kër bu sëñ Maxtaar Mbàkke ko mës a dégg fenn da ngeen a yaakaar nit mënut jaamu yàlla ci leneen lu dul wër di jàngaan ñi di ko jox ab bu wër di jàngaan ñi di la joxob xaalis doonoon doonoon doonoon farata wala suñ tubaa digle ko kon moom mi bindoon téere bi mooy wër ci réew mi di jàngaan te defu ko xasida dañ koy jàng di ko yàlla waaye nag jàng ko ngir alal ba di ci formé ay gone yoo xam ne yi da ngay dox sa diggante ak euh, seen diggante ak ñu jàng nga def leen star yoo xam ne seeni morom ci ñoom lañ fas yéene di roy nga xam ne fi nekk nii gone yi tey koo seen muy kumur kumur ngàbb ab xasida loo ci bëgg ah boo ko jàngee mu neex baat kal ko ñu jëndal la wata tam xal la kër waaw ngeen dox diggante gone yi ak la Sëriñ Tuubaa buggoon ci gone yi te defe ne yéen ngi ci dara yéen mag ñii formé gone yi ci loolu nekkuleen ci dara dara dara ci ay naate xawoon a ngeen ne waaye ñii dajale seen alal ba noppi ci kenn xamul fuñ ko jële itam di ko financé ci gone jàmbur yoo xam ne dëggëri daar na tokki te daara ja ñuy jàng te bàyyi seeni doom ci kër gi te ñu leen ko kuy xalaat war na laaj pexe yi bari waa nag koo xam ne jënd nga oto woo ab parental di ko ko jox yaa ngi ñetti parental ak ñeent te jëndaloo leen oto wala sax nangu woo jënd ko jëndaloo leen sax téléphone day jàq sam njàng demal jàngi waaw yow ngay orienté sa doom ngir ëllëg mu amal la njëriñ alal ji la yàlla jox nga di ko financé ci doomi jàmbur ngir yàqal ko àddina jëndal oto gone ko tuuti tabaxal ko kër jox ko téléphone na ko deel wër àddina kay loolu mooy bàyyil jàng bu jàngeeti loolu Sëñ Tuubaa gërëmu ko àndu ci li waa wax nañ ko dégg te jëfe ko nañ delloo gone yi ca daara ji ñu jàngi te bañ leen jàngal diil nañ bàyyi diil beeg mag ñi Sëñ Tuubaa moom danañ ko diile diile diile diile ba dee su ko wax waaye na mag ñi nekk ci diil bi nag te gone yi bañ cee bokk waaye léegi yow yow yow mag ñi di diil gone yi di diil di dóor martu di nax murit yi ci kaw bëgg nañ Sëriñ Tuubaa rek ñu nar cee sax ba kañ yan yàlla teg ñu ci jub teg mi ci sellal